mbokk yi ak xarit yi ñu ngi am mbégte bu baax a baax a baax di <coughs> euh, leen remercier euh, ci fidélité bi ngeen am à travers donc euh, li nga xamante ni yéen a ngi koy suivre saa su ne ci seen émission bi nga xamante ni ñu ngi leen koy dégtal que ça soit mu nekk l'entretien wala face à Dakaractu wala sax waxtaan yu ni mel yi nga xam dañ koy waxtaan ak ñenn ci ñi langue politique yi ñi nga xamante ni aussi ñu ngi activé bu baax a baax ci li nga xamante ni également moom mooy. Euh, développement euh, socio-politique tey nag ki ñuy waxtaanal bokk euh, ci langue gi bien évidemment waaye tamit représenté kenn ci leader yi nga xamante ni dañoo daal di dëggal seen bopp ci présidentielle bi nga xamante ni moom lañ dëgmal muy donc As Babacar Gueye As Babacar Gueye moom mooy mandataire national bu Idrissa Seck coalition Idy 2024 Euh, nekk tamit euh, koo xamante ni euh, yàgg na topp ki nga xamante ni également moom mooy le leader du parti Rewmi à travers toutes ses activités politiques donc moom lañ fas yéene waxtaanal ci lu yaatu ci li nga xam ne moom moo ñeel la actualité politique As Babacar Gueye ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci teewaay bi nga fi teew tey ñu lay remercier ci disponibilité bi également jërëjëf sëñ Cheikh

di wax ni vraiment maa ngi ci seen disposition. jërëjëf euh, As Babacar euh, dafa am <clears throat> ab euh, décision bu sa leader jël muy décision bu am solo boo xam ni dafa interpeller ñu bëri parce que bi nga xamante ni président de la république daal di nay wax lii di mbébétam. Mhm. ci daal di dajale ñi nga xamante ni ñoom ñooy les forces vives ñi leen mën a tuddee romb na sax candidat yi nga xamante ni déjà conseil constitutionnel retenir na leen waaye dafa bëgg benn waxtaan bu yaatu par rapport à ce que xam donc mon moi date wi ñu war a fixé date datu euh, élection présidentielle bi. Mhm. donc loolu euh, nekk euh, loo xamante ni appel la bu mu à l'endroit de tous les candidats. Idrissa Seck bokk ci ñi nga xamante le conseil constitutionnel de leen validé muy 19 candidats yi mhm. conseil constitutionnel validé Mais, dañ ko fa gisul ñu avons, ni certainement des raisons profondes yoo xamante Euh, tax na ñëwul foofu parce que bu ñu ñamee ko aussi euh, à travers euh, dialogue yi nga na ko TV, mhm. six dialogue yi fi Macky Sall organisé yëpp kaat yëpp daf cee ñëw donc tey bu di am fële ca jam ñaajo mom teewu ci dina jaaxal ñu lan moo ko war a mën a téye yow mi nga xamante yow yor Euh, lan lañ wara mëna japp ni mom motax Idrissa Seck téwul ci ndaje bobu jërëjëf euh, jërëjëf Cheikh. euh li nga wax amna solo effectivement depuis que le président Macky Sall jël réew mi ak mm-hmm. légui ni nga ko waxee vraiment c'est bien renseigné juróom ben dialogue amna fi. Mm-hmm. ci juróom ben dialogue yoyu ñent yi bokku nañ ci. Mm-hmm. bi moy ñaarel bi nga xamni demuñu ci. lool nak da fay firndel ni chaque fois que ñu nekk ci situation yu mel nii woote ay ndaje yu mel noonu le président Idrissa Seck dafa am ay nat yi nga xamni mom lay nat bu ko naté ba pare doog jël décision pour dem wala ñak dem chaque fois que woté nañu dialogue mu xol ko xol lan mo tax ñu woté ko bu gisee sabab bi xamni sabab bi kat c'est un intérêt vital wala vraiment un intérêt très important li nga xamni dal buñ fa démé dina indi njariñ jëmale ko ci ci ci ci ci ci Sénégal kenn du ko fa jitu ndax c'est un apôtre vraiment du du du dialogue waaye chaque fois que mu gis ne lii ñu woote wax deug yalla jiitalul li nga xamni mom la askan wi bëgg waaye leneen nga ci da fay boppam bopam moo motax dialogue bu njëkk bi ñu bokk loolu moy dialogue bi nga xamni mo fi doon instaurer la loi de parrainage nga xamni ñu gisoon ni ñu sax parrainage ndax parrainage filtre la waaye ñu gisoon ni aussi ni amna ay rëq-rëq amna ñu ci wara a def et cetera mu décider woné du ci bokk ba bi aussi le président Macky Sall invité comme nous l'avons invité parce qu'il a été invité bi mu defee natt ba xool gis na ni wax dëgg yàlla dialogue bii moom dialogue la bi nga xam ni mënoon naa bañ a jotagul dès lors où le conseil constitutionnel nga xam ni moo vraiment les élections fait euh, une décision Il a fait une décision wax ko dit que dans les meilleurs délais mm-hmm. a ab pour que nous continuer le processus ñun dañoo yaakaar ni l'or li mu waroon def rek jarul won li rek les 19 candidats yi nga xamni jall nous nañu. Mhm. aussi l'administration électorale nga vraiment sous la tutelle du ministère de l'intérieur sen xam-xam match na jëm ci lolu mhm. moi je pense que ñooñu buñu togué en en quatre heures de temps war nañu mëna régler affaire bobu ñu mëna continuer le processus. Mhm. parce que dialogue bi président dialogue bi mu bëgg te wax ko mu leer nañ le samedi bi mu démé di le vendredi bi mu démé di enregistrer à la RTS té nit ñi déglu dégluwuñ ko bu baax moy euh, Sénégal dialogue war na fee mën am. Mm-hmm. ndax euh, nit ñi réro nañu. euh non bi baré na yi fi xew aussi depuis mai. 2021 mm-hmm. ba juin 2023 23 mu ngi fi. Mm-hmm. yooyu yëpp nag euh, président bi nga xamni mom lañuy fal ëllëg Sénégal yi fal ko. par la volonté de Dieu et par. Euh, par la grâce de Dieu par la volonté du peuple suis président de yalla na ko inshallah wala ñu fal ndax mhm. chantier bi mu wara moy taper xol réconcilier les sénégalais entre eux. bobu dialogue lay xaar pour bok ci. Mhm. mais fi wax vous yalla gisul ni dialogue war na d'accord mais est-ce que est-ce que mais du non non paré ngañu ñu tamit Cheikh nga mhm. parce que dès dialogue te am ñu fa donc bu ay dialogue yi nga ñu fa fa aussi dañuy considérer ni sañ-sañ la aussi. D'accord. mais est ce que euh, ni mu nekkee ñële sañ-sañ yeen jappo ni en toute responsabilité ah. Hein? Mm-hmm. waron ngeen bon aussi aura bi ngeen am. Mm-hmm. ak euh, dayo bi am aussi ci politique. Mm-hmm. jappo len ni waron ngeen euh, au moins comme niñ koy reprocher yeneen candidats yi ngeen dal di wax li nga xamanteni mom moy mooy seen xalaat li nga décliné ni ak aussi li ngeen ni peut-être dialogue bi war ko mën a ngeen gay di koy yeggee kilifa gi. xam nga euh, canaux de d'information yu bari na li ñuy jàpp xalaat ko ñu ngi ni tay ñu ngi ci waxtaan tay dafa tolloog bu fekkente ni président Seck dafa xalaat ni la réconciliation du peuple tôt ou tard fay incomber kiñi fal. Mm-hmm. tay ji euh, position bi mu jël muy am ñuy wax neutralité te ak sore yoog neutralité muy une troisième voie hum. de transition nga xamni presque dafa am ay camp yu fixé wu hein mais ni dafa am camp au pouvoir hum. am camp opposition bu fekkenté ni yow yaa projeté hum. né bis bu la yalla falee da nga wara bolé war nga am digënté bi nga xamni taxaway bi nga xamni ne ëllëg si biir liggéey boobu dafa yomb ci yow parce que tey ji ko gisoon mu and ak les 19 mu and ak les les ay natongom que j'ai salué au passage surtout mes amis mandataires mu and ak ñom tey jii di am yenn doxali ni day dem ba dafa melni fi la far contre camp bi buñ ko gisoon tay ji mhm. chaise boobu ñu ko réservé loon fële ca jam ñaaja mu tok fa ñi mën nañu ko jappé sax comme ennemi té moom mhm. président de vraiment nak c'est un c'est un sage ki nga xamné ne yaa def sa quatrième élection. du mhm. du ben am li nga bëgg ci dëkk bi am li nga ci projeter position bi daal position bi sage mhm. parce que c'est une position de de de de transition et de réconciliation déjà qui mhm. montre que quel mënu fait le fait. Mhm. donte ni am ay mauvaise langue yaakaar ni woy euh, ragal de dafa non dafa fi mu far mooy dafa far ak peuple bi moo tax lépp li nga xam ni na ci dialogue bob nga xam ni am ñu ci demoon Wallahi, ni ma ko bu gisoon dafa nekk à cheval sur euh, vraiment les lois et règlements de ce pays là dina ci and ak mom mhm. mais lepp li nga xamni tamit andul ak lolu def ci guen lo rek la. Mhm. et je pense très bien que euh, conclusion suivre nañ ko te am nañ ci ay positions. d'accord mais est-ce que tey euh, est-ce que est-ce que bon par rapport toujours ak position yoy ngeen am tay président dafa jël ndogal euh, comme niko ko d'ailleurs constitution bi waxé mandaam en réalité day jeex le 2 donc le 2 avril le président de la République ne sera plus euh, président euh, des Sénégalais. Tout à fait. Euh, est-ce que as Idrissa peut-être gis mhm. ak ñi nga carrément que le président Amna dem du sax ndax tamit jambour? Mhm. comme le conseil constitutionnel wax nako dans les meilleurs délais. Mhm. na organiser élection aussi situation bi quand même cher situation impasse là il faut le dire gis naa ñu bëri interpréter l'article 31 de la constitution l'article 36 de la constitution bëgg ci mais non non je mhm. pense que lolu lolu amul mhm. euh, président Macky Sall euh, tombe euh, vraiment ci reñam ben léthargie ci fin bi ak ben manque de volonté ci fait bi bu tax ba ñu indi nek tombé ci ben impasse parce que en vérité ces articles y'a yi ma wax préparé woon nañu bu baax la transition nan la mëna a mhm. que euh, ñaanu ñuko yalla njiitu rew bi feebar wala mo am empêchement mhm. euh, wala le mot fi à na mhm. n'est-ce pas bu ko défé constitution bi may nañu nuñ ci démé mais li mo mënul am un président de la république bi nga xam ne ñetti yëpp dara dalu mu war avant la fin de son mandat et qui n'a pas organisé mm-hmm. Fofu le dougol Sénégal donc comme Fofu le dougol Sénégal nag léegi juste constitutionnel bi mm-hmm. dafa nekk ci euh, une situation inédite bi nga il faut que vraiment moom mu àddu ci lu mel noonu te loolu it mm-hmm. parce que comme ni véritablement maa ni euh, tey jii bu comme sax moom dafay wax ni vraiment beaucoup, sax fekk ay élection té li ñëw na ba dal suñu kaw. mais tay ji bu démissioné won ci affaire bi bu démissioné won dañuy wat véritablement ci l'orthodoxie du texte constitutionnel xamné effectivement le président de l'Assemblée nationale sur 90 jours de mën a organiser élection. donc yow da nga japp ni war na mën dafa dafa à mëna démissioné dama sama xalaat la wax ma ni bu doon bu doon man nga xamni wax dëgg yalla man gardien de la constitution du ma pousse sama peuple mu dem ci impasse bien nga constitution bi on wara garder ko c'est ça le problème parce que même s'il part aujourd'hui au, au, au le, 2 au soir du 2 ni je va je m'en vais mais le conseil constitutionnel effectivement hmm. fay nek ci ben délai bi nga xamni mom lan lay bind pour jox ko est-ce que daf koy wax ni ko damay dem mais utal ku def transition bi ouais je suis intéressé ou je ne suis pas intéressé donc pomme chaude patate chaude bobu muy wat les sept sages mais waroon na mën ñak ci ci ci réew mi ndax lepp lu ci am. loolu koy lu koy euh, manam lan moy prévenir loolu pour lo situation bi ñu bañ ci mën yegg. man da li hmm. ma ni. lima gis mu nek bu volonté parce que aujourd'hui comme il faut 58 jours 54 jours c'est-à-dire 8 semaines pour organiser ces élections là parce que demoon nañu ba ex à la veille de la de à la veille de. de de de de la campagne électorale qui devait hmm. durer 20 jours. 20 hmm. jours nous lañu soxlo avec 13 jours pour faire le premier tour, avec 20 encore, 21 jours pour faire le second tour, on a besoin de 54 jours, de 8 semaines. Moi, je pense que comme les dalles nationaux, compréhension, il faut que nous une impasse de faire Si vous avez une volonté, fixer la date des élections avant le 2 avril, nous savons qu'il y à une dispositions véritablement. Maintenant, mm-hmm. et, effectivement, si vous avez une élection, nous euh, avons a élections te élection yi parewul kooku xel mën na jàpp donte ne impasse banque fi ba léegi. Mm-hmm. lii mu sumb nii bu paré mu joxé mais li dalul xel moy du fi duma ma hein n'est-ce pas sama m'a eu ci nak bu ngeen di japp bayil xel nawet bi ak dakka bi ak ngenté etc difficulté bi donc moi je pense que jusqu'à l'heure je vous parle mon su décision joxé date parce que aussi conséquence mhm. donc bu ci pour avant le 2, je pense que le problème et que les gens peuvent se retrouver peut-être autour d'une table, les 19 qui sont, qui sont retenus par le Conseil constitutionnel de façon définitive et droit à qui avec l'administration du Sénégal, que l'administration électorale que je fréquente depuis 15 ans, nous avons autour de lui je pense qu'on peut trouver mhm. véritablement une date et commencer mhm. ces élections D'accord. Euh, par rapport à l'engagement euh, bi 19 candidats yi nga xamante conseil constitutionnel mhm. euh, par rapport à l'engagement engagement Qui, bi nga déjà ñu koy entamé depuis bi jafé jafé yi Avec ak aussi un plan d'action etc. bon dañ leen gis dañ leen gis dañuy def point de presse dañuy def etc. marche etc mais jusqu'à présent Idrissa Seck ba légui kenn gisagu ko. ci peut-être aux côtés de ses euh, camarades. de de donc donc qui ont été retenus. lan mo waral euh, position bobu non Idrissa Seck am ko ak aussi est-ce que jàppoon peut-être il n'est pas en quelque sorte un peu en déphasage avec ses autres candidats. du tout xam nga dafa tollook euh, néeg bo ciy ki la fa la je pense que ni qualifié ñep di dem am ci de grands commis de l'État am ci aussi ñi nga xamni ni ñu mérite waye ju doo ko dugg ci mbir mom xam nga kooku comparer ak euh, un président idriss Seck ak expérience bi nga xamni ni nek ci à ak jaar-jaar bi nek ci muy préparer quatrième élection xam nga kuy préparer sa quatrième élection tu as suffisamment emmagasiné de l'expérience ba nga xamni da ngay dem ba da ngay xamé ragnalé yëngatu ak ndax xam nga yëngatu baax na lool waaye yitee ko gën ndax yite sax yëngatu la waaye yëngatu la bi nga xam ne dafay jur njariñ donc je vous dis le processus électoral bokk nañ ci ñi nga xam ne raté wuñ ci benn étape à l'heure où je vous parle bi ñuy arrêté affaire bi mhm. le mi dans le cadre de la coalition Idy 2024 pare woon nañu pour couvrir l'ensemble des départements suñu potentiel départementaux yi pare nañu mhm. au niveau des arrondissements sur les 126 arrondissements arrondissements suñu potentiel yi ci benn arrondissement arrondissements ñu am forclusion déposé déposée. joxe nañ ko mhm. suñu bureau de vote aussi vraiment couvrir l'union lépp parce que c'est très très difficile 15 000 16 000 bureaux de vote mais def nañ ci nous bu am solo ba présence bu am solo nous la de préparer 15 jours avant les élections de préparer pour déposer nous ñu représenter au niveau des commissions départementales de recensement avec la commission nationale donc nous pare sur sur et je vous dis suñu le programme du du du candidat de sec na présenter vous savez dans les élections l'état a am ay affaires yu des euh, euh, candidat Nous, ñun li ñu ak état muy suñu suñu profession de foi candidat suñu programme de campagne suñu programme d'affichage ñun bokk nañ ci ñi njëkk déposé au niveau de la direction des élections bah, à l'heure je vous parle mhm. au niveau de l'imprimerie mhm. bi nga xam ne moom lañ ko je vous jure suñu n'est pare na 225 deux cent vingt cinq mille côté boobu ngeen mais est-ce que eu ta bi ngeen waron am ci côté FC 25 cinq boobu man hawaï boobu man moo ma def problème c'est-à-dire pour ñu ànd ak ñoom Non, laa lay wax euh, Idrissa de par sa maturité dégage une voie transitoire président il est en parfaite communion ñu nekk ci langue bi ak comme ñu nekk ci langue bële. Hmm. fële ña ñoo fa nekk ses camarades euh, Mamadou Diop croix, mon frère que je salue ay Rakam, hmm. ñoom gaku hein ay Déthié Fall son jeune frère nit ñi nga ni jàmm rek la seq ak ñoom boo ñëwee ci boor bi aussi amul benn xaarma yalla ak parce que da ngay ni ba le pouvoir soxlaa ñëpp dugal sen loxo pour que ñu le Sénégal mais faut sacrifier boppam dem ànd ak le jël conseil économique liggéey. tey jii nga xam ne peuple moo. dafa jàpp ni daal bokkul ak ñoom même ring quoi. mais ku nekk xam nga ak ni ngay doxalee du loolu xam nga tey jii mem ci di ñooñu ñoom ñooñu ànd bokkuñu ay doxalin gis naa ci ñi nga xam ni le le vingt cinq dañu dañu dem ci ay bureau de vote di rang di voter. Mhm. gis naa ñi bokk ci ñoom te defuñu loolu. Mhm. donc ku ci nekk danga koy jàppal doxalinam li ci am solo rek mooy conclusion bi ñu jëm ñun ñëpp ñoo ko bokk cest à ñoom li ñuy li ñu bëgg ñun moom la ñu bëgg bëgg nak président de la république vraiment terminer en beauté fekk ñu ci lolu mm-hmm. dëkk bi vraiment am dal. d'accord ñu euh, jéxalé ci benen det bon dernier point. mom mm-hmm. euh, moy euh, li ñeel walum amnistie bi. amnistie bi ñu koy waxtané d'ailleurs démb en conseil des ministres dal dinaay jël ab dogal ngir ñu xol naka lañuy ñuy bobu les projets fële ci pencu ndaw. dans les meilleurs délais. voilà dans les meilleurs délais <laughs> dafa melni expression bu xew la donc lolu bu ko waxee c'est parce que am na mbébétu yóbbu ko fële ca assemblée nationale ngir euh, ña nekk ca pencu ndaw réew ma mën cee xalaat. est-ce que jàpp nga ni euh, As Babacar d'après tout ce qui s'est passé entre deux mille vingt et un et deux mille vingt quatre euh, atrocités yi fi am ak moor yi nga xamante ni ëpp nañ pratiquement plus de quatre vingt ñi ñu yàqal seen alal milliards yi nga xamante ni c'est voilà dafa naax saay loolu yëpp. buñ ko naree tey dëxëñ dal di koy faté est-ce que Japoni bon ma rappelé ni nak que euh, peut-être de délimiter guñu. li nga xamni mom moy voilà fait yi nga xam mom lay jël en compte. maintenant est-ce que Japoni par exemple comme dañ ni de 2021 à 2024 fait yi nga xamante mo concerné intervalle bobu la est-ce que Japoni tay euh, sentiment d'injustice le sénégalais am le sénégalais yi am ñom ñëpp envers euh, leurs dirigeants. mais mais tontu nga laaj bi Cheikh wax deug yalla dafa dafa dafa dafa doy war xam nga une loi d'amnistie nous koy wax c'est toujours une une une loi clivante manam ak nu ak ko a mujj gi dina am ñu mer am ñu contane am ñu ci ñu ci dafa équilibré motax ñun dañu rejeter ci format bi mu def ni dañ ko rejeter le président Idrissa Seck sa position par rapport à l'amnistie moy daf ko rejeter complètement à 100%. cent les cent waaye li euh, déjà amener les mois événements wax événement politique yi euh, juin mai euh, mai 2021, juin 2000, 2023. deux bi. Mhm. wax mhm. mais est ce que champ bi sax foofu lay yem est ce que les crimes est ce que les crimes financiers yi ci am ci parce que xam li ci même mhm. en conseil des ministres. on on on on nous a dit que de ko lii rek daal di koy tant que demul assemblée New wax li ci mais tey jii ñun li d'accord d' accord oui pour une loi d'amnistie après pour président bi nga xam ne moom fal. Mhm. yàlla na nekk ñun ndax avant Boba, dañu a vraiment rétablir la vérité des responsabilités des uns et des autres. ku mhm. ci nekk ban responsabilité nga am ci que ce soit du côté Ngourgi, que ce soit du côté des des des des des leaders politiques mhm. ba lii nga a ne dal nañu te metti lool nañ les yeux dans les yeux nous situer vraiment les responsables. Il jàppoon a bu ñu ko situé ba pare. Mhm. Mhm. n'est-ce pas mais nous devons nag euh, réparer aussi les torts bu ñu réparer les torts ba pare maintenant nous devons a joxante loxo pardonner. ba mhm. pare doog def amnistie tant que nous ko léegi rek bi dans les journaux je ngi xool sama benn doom baay bu tudd Adama Gueye buy commencé à dafa des ci événement mais commencé di ñaawtu lu mel noonu yooyu yëpp mën na nekk mën nañu mais là je pense que c'est pas le chantier de Macky Sall qui va terminer d'ici le 2 avril ça doit être le vrai ah. chantier qui nga de son successeur vraiment mm-hmm. de façon très claire nous ñi waxee ni datu 2 2 juin parce que ce n'est pas conforme aux recommandations du conseil constitutionnel non nous la ñu ni d'accord donc comme du chantier euh, da nga jàpp ni euh, li tax est-ce que le ni un euh, intérêt particulier par rapport à ça. moi écoute je ne peux pas en tout cas je ne lu ci tey xel li ci am solo hmm. chantier moy tey jii jëfee recommandation au conseil constitutionnel ba dëkk bi nga xam bañ dañ ko koy jox dañ ko ko jox ci joxine bu rafet nga xam ne joxewuñ ko ci ay tapalé momit it jotu ko ci ay tapalé mm-hmm. dafa suyewu wër Sénégal wëraat Sénégal wëraat Sénégal Sénégal yi wóolu ko jox ko mu def passation de service bu rafet n'est-ce pas bobu dal mom combat son dernier combat mm-hmm. doit être mu fexé

des recommandations du conseil constitutionnel. Mhm. vraiment nous nous ko parce que nous avons def ci mhm. aussi. mais vent vent vent d'apaisement bi am Euh, ak euh, ces nombreuses libérations de détenus politiques dits politiques euh, tay Idrissa Seck moom nan la ko jàngatee globalement est-ce que japonais aussi à son niveau bon en tant qu'acteur politique euh, madame apaisement bobu daf war na gën a yaatu ba dem laal ki nga xamanteni ni bokk na ci d'ailleurs candidat yi ñu euh, désigné muy euh, Bassirou Diomaye Faye ak euh, même Ousmane Sonko c'est-à-dire est-ce que doon nañ également ñoo xam war nañ mën bénéficier bon président Idrissa c'est que muy mom il est pour une participation inclusive n'est-ce pas à des élections du tey rek la ko commencé dans le respect des lois et règlements du du du pays ku ñu teg ay daan. yu lay mën tax ba doo nekk candidat tant que daan yoyu demul mënoo nek candidat c'est clair donte ni mom bu doon sagoom la xew Amérique moy xew fi nit def lu mu mais du du même un criminel de haut niveau warul ko mën a mu ñëw les américains ni leen dama bëgg président bu les américains yi xool il a tué mille personnes waaye kii xam-xamam doy nañu ne jiite ñu def ko mais malheureusement c'est pas le Sénégal fii daal ku am peine purger bu vous bu fait ni loolu gàllankoor dem na vraiment nga meuna ñew sa loxo donc vraiment suñu truc maintenant par rapport ak les libération, ndox mi nga xamni nak ba muy du ci les tenants et les aboutissants vague yi am ni dina ci bu mhm. wax dañuy xëy rek ñu ni Tambacounda diw génn na kii génn na kee génn na mais kee génnul bien que nag prérogative aussi chef de l'État la. Mhm. ndax daf ay pouvoir am dafa immense. dafa immense ah moo am loolu sañ-sañam di ko def mais daal xam nañu ni li fi mas a am lépp nit ñi dañ leen di juger ba pare. Mhm. yaa ngi dégg. bu ñu paree nag grâce mën a ñëw wala leneen mën a ñëw. Mhm. mais nag c'est de la responsabilité du chef de l'État donc le président Idriss Seck ne s'est pas prononcé par rapport à ça. mais bis bu amee élément yépp la cay dëgg dina ci ànd li ci dul du ci hyper présidentiabilité nan nga ko mais dafa doy war article article 52 bi est-ce que xam nga ni avec l'article 52 de la constitution. mais le président de la république bu démé ba yakani deuk bi jaxassona n'est-ce pas vraiment bu ci taxawul euh du du du bax amna ay pouvoir exceptionnel pour pour agir. Mm-hmm. loolu koy ñaan nak fi nak wax comme mon mot pousse mbir yi ba boumou mu làqatu article 52 di ñuy wax ay trucs exceptionnels di dissoudre ay conseil constitutionnel ak di tabaxaat ak yu mel noonu loolu bu ko pas dina nekk parce que vraiment on ne traverse pas aujourd'hui sur le plan électoral une crise bi nga xam ni surmonter mhm. le plus petit fonctionnaire de l'administration électorale si mhm. ñu ko ko nous, les mandataires nous nga xam ne yàgg nañ ci yëngatu ñu nekk ci wetam dañ koy donc mhm. effectivement tamit dafa war a le chantier du prochain président. ça mm-hmm. c'est important le chantier bien nga xam disney tey gis ni war na beaucoup mm-hmm. moins l'immigration clandestine bi avec l'emploi des jeunes. ak xew ci dëkk bi vraiment je pense que l'homme moom laaj na ay. on a vu que le bilan même a augmenté il y a 25 décès ngi Saint-Louis suñu yooyu. vraiment 25 a disparu l'homme loolu moom ay assises nationales jar na ay dialogue ñëpp bokk ci ñu xool nan la def ba suñu force vive yi di génn di dem ñu mën leen fi téye ñu gis fi li nga xam ne mën leen fi téye donc réconcilier leen avec le peuple. Mhm. faire revenir l'espoir. merci beaucoup Ass Babacar. Cheikh man maa lay remercier. ñu bàyyi la nga tàggatoo. maa ngi lay nuyu bu baax di wax ni jërëjëf di wax daal président Idrissa gars yi namm nañ ko lool. Mhm. <laughs> voilà mais ñun ñi jege jege ñi ko jege eh, du am problème parce que lu yëngatu ci politique rek ñun dañuy dem ca la mu waxoon rek. Mhm. day mel ni tey la ko wax. loolu yàlla na ko ci yàlla dimbali mais ñi nga xam ne nag xamuñu loolu sore ko dul gis mhm. je vous dis il trouvera le format nécessaire le moment opportun par rapport à son agenda mais Sénégalais yi namm nañ ko lool mais il mhm. va leur parler. Mhm. te bu waxee ak ñoom daañu xam intérêt Sénégal rek jërëjëf As Babacar donc euh, mu nekkoon euh, euh, le mandataire national de Rewmi As Babacar Gueye moom lañ doon waxtaanal ci li ñeel actualité politique di leen jaajëfal yéen également ñu ñu doon suivre à travers donc votre chaîne la référence Dakar Actu di remercier ñi fare woon ci wàllu technique gi ci wàllu xarala gi di leen dox dig dage beneen yoon ak beneen gan jërë ngeen jëf